الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا له اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله seen mbokk imaam Abdou Aziz Ndiaye bu jàkka Sacré Cœur 3 VDN moo del si tey lundi 1 premier avril 2019 di waxtaan ak yéen mu nekk sunu ojo numéro 30 ci sunu jotaay bi passé tàmbali woon nañu waxtaanee ngéneel yi nga xam ne yiw yi nga xam ne ñoo nekk ci ci dem jàkka xasanaat yi nga xam ne jullit jullit bi mën na ko taxan su nekkee ne mu ngay dem jàkka di fa jooxe ay farataam kon tey jotaayu tey bi ni ñu fas yéene mottali ko kon jotaayu tey bi audio bi tamit dañ koy jagleel ba léegi rek yiw yi nga xam ne xasanaat yi nga xam ne borom allah subhanahu taala mu ngi ko dencal ñi nga xam ne dañu saxoo jàkk ci yiw yooyu gisoon nañ ne ku génn këram rekk di dem jàkk pour joxe ji faratam diggante bi li nga fa mën a am ci ay xasanaat du jeex waxoon nañ ne tànk booy yëkkati borom bi daldi la effacer sa benn bàkkaar nga yëkkati beneen tànk mu daldi yokk sa yokk sa daraja yokk sa martaba noonu noonu la koy jàpp yow ba ba ngay egg jàkk ja soo yeggee jàkk ja nag mbokk yi ba dugg dina ñëw ca kanam suñu def tegg ni jàkka adab masjid dinañ gis incha allah naka la yonent bi jàngale ci nu ñuy duggee jàkka dinañ ci ñëw ci audio yi ñëw ci kanam incha allah ci tomb bi nga xam ne dañ ko jagleel tegginu jàkka dinañ ko gis kon yegg nga jàkka ja dugg nga ah, ba def say def say farata léegi nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na képp koo xam ne dem nga jàkka dugg ci jàkka ji def sa farata yonent bi nee tànk yaa ngi toog ci jàkka ji ànd ak sa njàpp malaaka yi duñ dañ di la ñaanal yonent bi nee képp ku dugg ci dem jàkka joxe am tànk mu ngi ci biir jàkka ji farata ba jeex na de waaye yank tànk yang ci biir jàkk ji ànd ak sa njàpp malaaka yi dañ lay ñaanal diir ba nga fa nekk yépp malaaka yi dañ lay ñaanal yonent bi sallallahu sallallahu alayhi wa sallam nee na malaaka yi dañuy wax allahuma salli alayhi allahuma arhamhu maanaam malaaka yi dañ lay ñaanal barke di la ñaanal njégal bokk yi xool leen loolu rek léegi nag su nekkee ne yow danga des ci jàkka ji toog di xaar beneen waxtu bi ñëw maanaam julli nga timis ne xaaral ma toog benn yoon rekk xaat gée yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na diir ba ngay toog foofu yépp waxtu ba ngay toog yépp di xaar gee jot gannaaw ba nga jullee timis ñibbi woo sa kër waaye yaa ngi toog di xaar gee jot ci biir jàkk ji yonent bi nee na dangay am yoolu kuy julli dangay am yoolu kuy julli yoolu kuy julli bu joteewul nag dara dara dara dara ak li ma wax sànq ne malaaka yi dañu koy ñaanal dafay ñëw di ci yokk dinga nga am yoolu kuy julli diir ba nga ko toog yépp malaka yi ñoom ci seen côté ñoom tamit ñu lay ñaanal barke ak ak njëgal mbokk yi mu nekk ay yiw yu yu yu doy mbokk yi dem jàkka dafa fees dell ak ay yiw amul leneen lu mooy yiw comme ngi koy waxee rek yan nañu yàlla yal yàlla xiir te te yombalal ko dem jàkka moo tax yonent bi nañu di leen dem jàkka ngeen di fay joxe seen ay farata di leen dem jàkka ngeen fay joxe seen farata te yenn ci seen naafila yi yenn ci seen naafila yi ngeen koy defee seen kër ndaxte nag buleen bàyyi seen kër yi mu mel ni ay sëkk bu leen bàyyi seen kër yi mel ni ay cimetière gis nga kon jàngal yonent bi sallallahu alayhi mooy ne farata julli farata yi suba tisbaar tàkkusaan timis gée yooyu moom nee na de la koy defe ca jàkka ja yenn ci seen naafile yi nag ngeen koy def seen kër yenn ci seen naafile yi ngeen koy def seen kër ndaxte seen kër yi faut pas ngeen def leen comme ñu mel ni ay sëg ñu mel ni ay ay cimetière mbokk yi dëgg la juróomi waxtu yooyu yonent bi salallaahu alayhi wa sallam wax ne nañ koy def sa jàkka ji di ko fay jooxe dina jafe at mi yëpp fukki weer yeeg ñaar yëpp bés bu nekk nga jul fi waxtu yu juróom déedéet dina jafe léegug léeg di nga am gàllankoor nag léegi léeg du ñàkk nga feebar waaye li ci ëpp mbokk yi li ci ëpp li tax e, jullit bi di am jafe-jafe pour juróomi waxtu yëpp mu koy def ca jàkka ja bokk na ci suñ tegee file wérgu yaram bokk na ci wàllu yëngatoom ci wàllu liggéey liggéey yi dina ñuy faral di xoj jullit yi ba nga xam ne duñ mun juróomi waxtu yépp ñuy dem ca jàkk ji di ko fa joxe ndaxte nag ñi yee ci bureau ya ñi yee ci marché ñii ñu ngi ci atelier yi ñii a ngi garage ñii a ngi chantier yi te nag du toujours lay am jàkka ci bërëb yooyu nga xam ne tudd naa leen wante nag mbokk yi ci waxtu yi juróom am na ci ñaar ñoo xam ne ca dëgg-dëgg euh, sen gàllankoor ci ñun ci walu dem jakka ci deug nyom dafa new ñom ci deug dëgg seen gàllankoor bi ñu ñi tek pour ñu baña dem jaka new na nyari muy ñaari waxtu yan muy julli suba ak julli ge parce que nak julli suba deug yalla Ah, moom ku góor góorlu tuuti rekk di nga ko war a mën a def soo ko mën a dem julli ji soo ko mën a dem eh, eh, dem liggéeyi ak tuuti pas-pas rek danga mën dem julli suba joxe sa farata jàkka ja daal di après dem sa kër préparé nga dem liggéey géey itam ca dëgg-dëgg. loo guddee wàcc guddee wàcc guddee wàcc ak tuuti góor góorgóorlu ak tuuti pas-pas di nga war a mën a dem jàkk ja joxe ji fa sa farata ki kon ñaari waxtu yooyu di di di suba ak gée moom ak tuuti pas-pas ak tuuti góor góor góorlu dinañ fa mën a joxe jàkk dinañ fa mën a dem jàkk ja joxe leen surtout que nag mbokk yi surtout que yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am ay kàddu yu mu yëkkati jëmmale ko ci ñaari julli yooyu yii dañoo raglu lool yii dal xel lool nañ commencé ci kàddu yu raglu yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëkkati na ko jëmale ko ci ñaari julli yooyu ma wax muy julli suba ak julli gée yonent bi mu ne dem jàkka saxoo dem jàkka pour dem joxe fa julli suba ak julli gee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na naafeq munu ko ah yonent bi nee na naafeq munul saxoo dem jàkka ci julli suba ak julli gee bokk ji wax ji dafa raglu lool dafa raglu lool ba nga xam ne julli bu nekk war na di ko xalaat ba bañ a bokk ci ñi nga xam ne ñoom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tudd muy naafeq te naafeq yonent bi sallallahu alayhi nee na xetu àjjana du ko xeeñ naafeq moom du dugg àjjana na nañu yàlla musal ci am jikko naafeq yal nañu ci yàlla musal te mu ne kon saxoo dem jàkk ci ñaari waxtu yi julli suba ak julli gee nga saxoo ko yonent bi nee na loolu naafeq mënu ko mbokk yi wax yonent bi dafa raglu lool dafa raglu lool te julli bi nag ca dëgg-dëgg war na di war na di éviter war na di moytandiku di def loo xam ne naafeq yi dañ koy def jullit bi lépp loo xam ne dañ ne naafeq daf koy def walla naafeq yi dañu jikkoo jikko yi kooku da nga koy da nga koy moytandiku comme comme comme jikko yi demee ni ki yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na ñetti jikko yi juróon jikko naa feq la naa feq suy wax du wax dëgg suy wax du wax dëgg naa feq soo ko dëkk soo ko dënk soo ko dënkee secret mu mu wor la soo ko dënkee sa secret mu wor la naa feq su digaté du ko def day digaté du ko def du tenir ay promesse am yoyu par exemple comme yonent bi nee na loolu na fexol la jullit bi fay fexe def def def kéem dam pour baña am jikko yoyu bok na ci tamina comme lim wax ni ne kuy na fex munul munul munul saxo dem jak ci ñaari waxtu yi ni julli suba ak julli ge kon jullit bi fa war di ni touma jullit bi dafa war def lepp pour baña nduro nafiqi yan ci yalla musal am jikko naa naafeq wala di def lo xamne ne naafeq daf koy def kon mbokk yi nañu nañu xar suñu tànku tibéy donte munuñ sax donte day jafé pour waxtu yu yépp at mi yépp ñukoy nekk ci jakka ja nañ baye xel ñaari nañ baye xel ñaari ñaari waxtu yi sunu liggéey lum ñu xoj xoj xoj am nañ am na place buñ mëna am nañ place pour dem jakka ja pour ñaari waxtu yi julli suba fekk na xëyaguloo julli géeyee fekk na wàcc nga li ci ëpp ci ci ci nit ñi ci kàddu yi nga xam ne nag moom ay kàddu yu yu yu yu dal xel la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee su nit ñi xamoon su jullit yi xamoon yiw yi nekk ci dem jàkka di fa joxe julli suba ak julli gee suñ xamoon loolu jullit yi suñ xamoon xasanaat yi nekk ci dem jàkka heure suba fajar ak gee même su nekkoon na am nañ sax ay gàllankoor ci seen wér-gu-yaram dinañ raam dinañ raam di dem jàkka pour julli ji fa suba ak julli ji gee mbokk yi xoolee na wax jooju dal na xel yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne suñ xamoon suñu xamoon xasanaat yi nekk ci dem jàkka ci heure suba ak heure gee suñ ko xamoon suñ ko xamoon ngëneel ngëneel yi ci nekk mbaax yi ci nekk yiw yi ci nekk gàllankoor buñ mun si am ci sunu ci sunu yaram duñu duñu du ñu bare daf ñu jaral sax ñuy raam jóge suñu kër di raam di dem jàkk ja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu doole waxaat ne képp koo xam ne julli nga gee ca jàkk ja fajar jot nga delluwaat sa jàkk ja joxe fa sa farata suba yonent bi salallaahu alayhi wa sallam na dangay am yoolu ku julli naafila guddi gi yëpp naafilu guddi gi yëpp mel ni ku naafilu guddi gi yëpp dañ lay defal yool su nekkee ne gée dem nga jàkka ja nga julli jëfa sa gée dem sa kër fajar nga delluwaat pour pour joxe sa farata suba yonent bu ne ku def loolu am nga yoolu ku naafila guddi gi yëpp mu nekkat ay yenn kàddu yoo xam ne dal na xel ci jëmale ci ñaari waxtu yooyu mbokk yi soo gisee may insister ci ñaari waxtu yooyu li ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax moo tax ba pare tamit dafa nekk ñaari waxtu yoo xam ne jàppandi na ci koo xam ne mu ngi liggéey heure tisbaar ak tàkkusaan ak timis xel de nangu ne mu ngi la fekk ca tisbaar ak tàkkusaan mu ngi la fekk ca atelier ba wala ca bureau ba wala ca marché ba timis mun nañ comprendre ne ah yaa ngi ci yoon bi di ñibbisi waaye ñaar yooyu nag ñaari extremité yooyu mu julli suba ak julli gee mbokk yi nañ ñeen ci góor góorlu te di bàyyi xel kàddu yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ko mbokk yi lii lañ jukki woon ci wàllu ngëneel li nga xam ne mu ngi nekk ci dem jàkk yiw yi nga xam ne mu ngi nekk ci dem jàkk xasanaat yi nga xam ne mu ngi nekk ci dem jàkk yal yàlla dimbale ñi nga xam ne am nañ jafe-jafe pour dem jàkk yal leen borom bi allah subhanahu dimbale xiir leen ci yombal yombalal leen ko ah ñi nga xam ne nag ñu ngi góor góor góorgóorlu di ko def yal leen yàlla gën a dëgëral yal leen yàlla gën a dëgëral te ñaar ñu ñëpp ki ki dul dem jàkk ak ki dem jàkk tamit yal leen borom bi àlla subhanahu taala musal ci seytaan parce que kële seytaane moo koy gën di gën di encouragé muy toog bañ a dem këram donte mu ngi dégg noddu sax ki nga xam ne moom tam mu ngi saxoo jàll saxoo saxoo euh, jàkk seytaane moom du am jàmm tant que sabatewul góor góorgóorlu boobu muy góorgóorlu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم